sëriñ boo mën a am bu la dimbalewul sa bàllu yàlla ba ko fa te uti beneen sëriñ bu ko weddil cëriñam nag mais suñu problème ñun Sénégal moo di dañu am politicien yu amul métier ay sëriñ yu amul métier saa yu ñuy wax dañuy bàyyi xel audience bi Ku ëmb sa ambesa, ëmb sa ok suma bay nee na ma ca Dakar daayira du liggey wax na dëgg sama bay moo ko wax daayira du liggey nit day metti ay faut nga xam sa bop pour nga xam sa da ngay xam lila yalla sante